dal leen ak jàmm ñu wax ci lu soxal programme digitalisation système de santé fii ci Sénégal indicateurs yi nga xam ne bëgg nañ ko dab ci diggante 2023 ba 2027 ñu ngi soxal ñaar fukki centre de santé ci téeméer boo jël ci téeméer boo jël fanweeri structure publique de santé ci téeméer boo jël benn million ak juróomi téeméeri patient yoo xam ne xaaj bi ay jigéen la ñuy doon ñaari weer laata ñoo door projet bi docteur Ibrahima Khalilou Dia di coordonnateur bu cellule santé digitale bu ministère santé di indi ay leeral. projet boobu nga xam ne ni dañ ko am ak banque mondiale ñu war a financer Sénégal jëm ci li ñuy wax xarale yi ak paj mi euh, projet boobu projet bi cinq la war a am durée euh, liñ ci séntu nag. liñ ci am yaakaar mooy bu cinq ans yi jeexee euh, danañ mën a joxe lu toll ak million ak juróomi téeméeri junni ci ay nit ñoo xam ne ni ñoom seeni kayiti kër docteur te dañ ko dugal ci ay machine yu wóor dencal leen ko ci internet ñoom ñi mun ci di dugg di génn docteur bi leen neex aussi mun ci dugg di génn di leen faj donc loolu bëgg nañ sax juróom euh, maanaam xaaj bi nekk ay jigéen loolu lañ ci loolu lañ ci am yéene euh, beneen aussi bi nga xam am na ko ci yaakaar maanaam mooy ci sunu bërëbu fajukaay yi xam nga bërëbu fajukaay yi dañu am ay problème internet ak yooyu daal donc ñun dañu wax ne ak projet bi euh, maanaam boo jëlee téeméer fanweer yëpp gën leen defal internet ba mu doy ba mat sëkk waaw xam nga nag dafa xaw a cher internet loo moo tax trente pour cent rek lañ ci mën a jël fi mu toll nii ñu ngi xool yeneen financement yi. beneen indicateur bi dafa jëm ci ñi nga xam ne nii dañu am ay laago te ñoom ñu war a am li ñuy wax ay carte d'égalité des chances ñoom tamit bokk nañ ci e-santé bi moo tax ñoom. Euh, seen carte boobu noonu boo xoolee tey euh, bool wëññee téeméer fukk ñoo ko ci am waaye projet bi dana ko yóbbu ba juróom fukk bu soobee yàlla donc loolu ak li nga xam ne ni aussi booy bi mujj mooy jigéen ñi xam wéruñu xam nga boo xoolee jigéen bu wérul boo sënee dafa am benn karne bu ñu yor carnet boobu it euh, dañ ko bëgg a def mu nekk carnet électronique maanaam mu nekk loo xam ne day nekk sa téléphone euh, boo demee aussi docteur bi dana ko mën a xool defal la ci lépp lim la ci defal dencaat dencaat ko comme sax ñun li ñuy génn ci xaalis di ko imprimer ay kayit den ko jox dafa bëri te aussi baaxul ci environnement bi donc loolu moom aussi ñu dugal ci boobu projet. mu bàyyi le kàddu gannaaw ab atelier d'orientation boo xam ne ñu ngi ko doon amal jagleel ko association des journalistes en santé population développement ngir ñu jot ci xibaar yi aju ci projet boobile soxal digitalisation système de santé fii ci Sénégal mu nekkoon ndajeb ñaari fan boo xam ne amal nañ ko ci diwaanu Thiès. xam nga nag balaa may sori foo ma wax mooy santé digitale. xarala yi ak technologie yi parce que tey boo xoolee nit pour mu faju foog mu ñëw ba ci hôpital bi wala ba fi muy fajoo bu fekkee ñëwul duñ ko mën a faj ak xarala yi war nga mën toog sa kër ñu seet la consulter la dina la ordonnance loolu mën naa nekk donc loolu bokk na ci projet bi ñu bi ñu nekk di wax Euh, xam nga tey aussi boo demee hôpital dañu lay bindal rajo ak yooyu yooyu boo ko xoolee aussi ci ay kayit la nekk da nga koy indi sa kër yenn saa yi mu réer yenn saa yi doo ko mën a gisaat donc loolu yëpp xarale yi mën nañ ta jàppale ñu def ko ci ay ordinateur denc ko fu wóor foo xam ne nii boo ko soxlaa rek ngay dem xool ko te loolu euh, gouvernement da cee d'accord ba def nañu naa def 30 milliards ak banque mondiale euh, fi ak ñaari ba ñetti weer dinañ commencé projet boobu donc bu ñu ko commencé dana amal njëriñ bu baax population bi parce que seeni kayitu docteur dootul réer parce que danañ ko denc foo xam ne nii ci biir internet boo xam ne yow yaa koy xam yow yaa koy mën a dugg koo joxul autorisation dafa mën a dugg xool ko donc loolu bokk na ci projet bi projet bi aussi bokk na ci tey dañu yor li ñuy wax tey ay plateforme yu bëri ay logiciels yoo xam ne am nañu waaye boo xoolee logiciels yooyu du ñu communiquer entre ñoom maanaam done bi du mën a jóge fii dem fee donc loolu aussi bokk na ci li nga xam bokk ci projet bi naka la ñuy def ba malade bi en tout cas bu jógee fii dem Ziguinchor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 Bonjour chers auditeurs, programme de digitalisation de santé au Sénégal. Les indicateurs pour la période 2023-2027 concernent 20% des centres de santé, 30% des structures publiques, 1 500 000 patients, dont 50% de femmes. À deux mois du démarrage du projet, le docteur Ibrahima Khadilouladia, coordonnateur de la cellule santé digitale du ministère de la Santé et de l'Action sociale, donne plus de précisions. Avec le financement de la Banque mondiale, allons atteindre euh, plusieurs indicateurs. Euh, le premier, c'est que nous comptons doter 1 euh, 500 personnes d'un dossier médical électronique, c'est-à-dire d'un espace Euh, de stockage de leurs documents médicaux personnels dans des serveurs sécurisés. Euh, ça, c'est le premier et le plus grand indicateur. Il y a, euh, et nous pensons aussi que, nous avons dit que les 50% de ces 1,5 million doivent être des femmes. Euh, parmi les indicateurs aussi, nous avons pensé aux femmes en âge de reproduction. des femmes en âge de reproduction auront le carnet de santé électronique. Pour l'action sociale, d'égalité de cas d'égalité des chances de 10 à 50 euh, pour cent euh, pour les structures de santé nous allons doter 30 pour cent de nos structures de santé de, de, d'Internet, donc de bande passante satisfaisante. Le docteur Ibrahima Dia se prononçait à l'occasion d'un atelier d'orientation sur le programme de digitalisation du système de santé à l'intention de l'Association des journalistes en santé population développement, un atelier de deux jours qui s'est déroulé à Thiès. Euh, euh nous avons estimé quand même qu'il était bien euh, de sensibiliser la presse, la presse qui travaille sur la santé, parce que la santé digitale est un domaine qui est assez nouveau. Euh, et si vous n'êtes pas outillé, vous n'allez pas pouvoir être à l'aise et vous devez en parler parce que la santé digitale, c'est une question des usagers. Parce euh, que la santé digitale va, va héberger vos données médicales en ligne, c'est une question importante. Les scanners, les IRM, les bilans pourront être mis dans des serveurs sécurisés euh, pour aider le patient dans la coordination des soins. Donc un patient peut avoir son dossier médical qui le suit, qui circule d'une manière sécurisée dans une base de données nationale. Et ça, c'est une grande valeur ajoutée pour le patient parce qu'il y aura des économies, il y a des radios peut-être qu'il ne va pas reprendre, mais également le médecin va bien le prendre en charge. Dans ce programme aussi, il y a la télémédecine aujourd'hui. On a fait beaucoup d'efforts pour construire des postes, des centres, des hôpitaux, mais on sait que des à faire de la télémédecine entre les centres de santé et les centres de santé